sëriñ bi sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal ginnaaw ba ñu sante yàlla suñ borom mi nga xam ne mooy borom kàttan tey borom man julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax suñ borom moo ñu ko digal ginnaaw loolu ñu ñaan suñ borom mi nga xam ne mooy borom kàttan tey moom borom man mooy ki nga xam ne mooy ki mën a aare mu may mu defal nu ci kàttanam ak manam ba Cheikh mun Muntaxa li nga xam ne yéene na koo liggéeyal lislaam mu def ko ci def defin wu kawe njottam te daje tañ ànd kook moom te daje ci ngërëmul suñu borom te defal ko it képp koo xam ne def nga sa lislaam muy sab tool yàlla jàppale la ca ba nga def ca lu kawe sa njot teñ daje ci ngërëmul suñ borom ginnaaw loolu nag ñu xam ne ñi ngi ci weer woo xam ne niñ ko waxe woon mooy weeru julli te julli doon lu am solo la ci lislaam ndax mooy ponk bi nga xam ne niñ ko waxee mooy bi bi ko suñu boroom di diggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yo yebalul jibril waaye daf ko woo moom yonent bi ci boppam ba mu ñëw ci moom mu wax ko ko te ba mu nuy suñ borom di nettali na nga xam ba ko woowee itam la nga xam ne moom na wax ak moom leeraluñu ko ndax dafa wax rek na fa awxaa ila abdihi ma awxaa loolu duñu tegtal ne kon lim ko lim ko woowe woon lu am solo la lu mat a bàyyi xel la kon muy julli julli nag ni ñu waxtaane woon am solo gi nga xam ne moom la am solo ci lislaam ndax doy na rek ñu wax am soloom ci lislaam ne mooy ponk bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne képp koo xam ne yaa ngi koy taxawal taxawal nga diine képp koo xam ne màbb nga koy itam màbb nga diine mu xamaloon itam ne mooy jëf ji nga xam ne moom la suñ borom di njëkk a xool ci do jëf yi suñ borom di defal jëf yi doomu aadama di defal suñ borom bu fekkee ne jaar na ci yoon du xool yee cee des waaye bu jaarut ci yoon nag du xool du du xool maanaam bu jaaree ci yoon moom rek la dootu xool ya nga xam ne moo ca des waaye bu julli jaarut ci yoon du xool ya ca des donte itam ya ca des yaa ngi ci doon góorgóor ni nga sa kemt lay kattan kon mu doon loo xam ne kon lu mat a bàyyi xel la ñu nekk nag ci ci weeram kon yaakaar naa dana jaadu ñu jéem koo nafaraat jéem koo fàttalikuwaat loolu moo tax ñu jox ko itte ji nga xam ne moom lañ ko bëgg a jox ñu waxtaane woon nag ci ajuma ji weesu ne am na ay sart yoo xam ne faw day nekk ci nit ki musu julli soog war ak sart yoo xam ne da koy day nekk ci moom julli ga soog ñu mën a jàpp ne julli ga baax na sart yi nga xam ne nag waxoon nañ ne mun mooy nakk ci nit ki julli soog ko war mooy bi ci njëkk mooy faaw dafa day doon ab jullit ndax bañ nañ ko ba jullit sax julli lañ julli jullit lañ ko tuddee mu mel ni kon julli munta ñàkk ci ab jullit beneen bi ci teguwaat itam moo di ne faw day doon koo xam ne ma maanaam toll na ci mu doon na mu kàllaf moo xam ne togg jëf war na ko kon faw day doonub jullit doon koo xam ne itam jëf jëf yi suñ borom suñu borom waroon na ci moom jëf ñaareel ba ca teg itam moo di faww day ànd akum xelam ndax suñu borom tegul kenn koo xam ne yaa ngi àndoog sama xel tegu la tegul du la teg jëf faww da ànd ak sam xel mu toog laa teg jëf ji nga xam ne moom la lay teg ñu waxoon ne nag nit ki mën naa nekk jullit nekk bo nekk mu kàllaf ne ànd akum xelam ba noppi te julli du ko war loola nag mooy jigéen joo xam ne dafa toll ci baaxam wala jigéen joo xam ne day soog a am dafay dafay soog a doom te deret ji nga xam ne moo nekk ci moom jeexagul kon ñooñu loolu nag liñ fi ñu ko tegtaloo moo dina yonent sayyidina sayyidatuna Aïsa radiyallahu anha dafa daa wax ne suñ borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee ne loolu mas na ñoo dal lim daa def mooy dañuy wax ne koor gi day moom jërul ngeen di ko fayaat waaye julli gi moom maanaam koor gi day mën ngeen da ngeen koy fayaat waaye julli gi da ngeen ko fayaat kon mu mel ni kon julli kon boo tolloo ci baax wala ngay soog a am wala kuy soog a am gone te der ji jeexagut kon julli du ko war te du ko fay itam mu am yoo xam ne itam moom lañu waxoon ne mooy tax julli gi mën a baax bi ci teguwaat bi ci njëkk mooy faw da ngay doon xam ne ndax laab nga ci li nga xam ne mooy toj am njàpp bi ci njëkk mooy boobu mooy faw da ngay laab ci li nga xam ne mooy tojum njàpp te loolu xam nañ ko ba ca teguwaat mooy faw waxtu julli dafay egsi te ñëw rekk jekki-jekki di julli te waxtu wa egsiwut ñaareel ba ca teguwaat mooy faawu da ngay suturaal sa awra ñu xamle woon ne suturaal awra googee nag li nga xam ne moo gën a tuuti ci li góor di def mooy li tàmbalee ci jubbu xam ba ci bati woowum bi day jigéen nag lépp léppam awra la lu dul xar kanamam kanamam ak ak ay tënkam kon mu mel ni faaw loolu nga xam ne moom la war a suturaal da koy suturaal julli ga ñu soog a mën a wax ne lu baax la suturaal googee itam ñu waxoon ne doo ko suturaale ci loo xam ne lu yaraax la ba képp ku la ku la seen di seen sa yaram bépp sa ñëw sutura def suturaale sa awra ci lu mel noonu ba ca teguwaat mooy dine faw place bi ngay jullee ak mbubb mi ngay sol ak ak yaram mi nga xam ne ak saw yaram day laab nga soog a mën a julli muy li ñuy tuddee taxaaratul xabas li ci teguwaat mooy faw da ngay jublu xibla sa ñëw jublu feneen fu dut xibla booy julli da ca teguwaat moo di ne kon biñ waxtaanee yi nga xam ne mooy li tax julli war la ak li nga xam ne mooy tax julli mën a ñu jàpp ne jàpp gu julli ga wér na ñu mën a waxtaanee nag loo xam ne moom la ñuy tuddee ay ponk wala ñu di ko tuddee ay farata mu doon nag lu mat a xàmmee ndax lu tax mu mat a xàmmee moo di ne dafa day farata day doon dafa doon loo xam ne boo ko fàttee ci julli ca fa nga ko fàttee moom loola baaxatul faaw danga koy defaat li nga xam ne nag moo di. moo moo moo kon kon loolu lu mat a xam la ndax loo xam ne mënoo koo sujootal te boo ko fàttee da yàq sa julli kon mat xammee lan la ba ba doo ko fàtte wala boo fàttee itam xam ne ju ràkk ba nga ko fàtte yi baaxut loola lu mat a lu mat a bàyyi xel la bi ci njëkk moo di ne faw da ngay julli bu dee yow képp yow jul yaay julli da nga yéene ne fas yéen naa julli jur doon doonte aajuwut sax nga di ko wax ci sa làmmiñ waaye nga fas ko ci sa xol ne fas yéene naa julli boo dee topp ci keneen itam nga fas yéene wax ne fas yéene naa julli ci ginnaaw diw sàggam bu dee bu dee bu dee maamum mu doon loo xam ne munta ñàkk boo ko fàttee mën naa yàq sa julli kon faw dafa doon luñ mën a bàyyi xel ci xam ne bu dee yow da nga war a yéene yow képp bu dee ke ngaa ànd ak keneen itam dangay ngay war a yéene fas fas yéene topp ci ginnaaw kooku ba ca teguwaat moo di ne faaw da ngaa war a taxaw bu dee koo xam ne am nga kàttanu taxaw nga sañoo jullit di gàppru te te te mën a te mën a taxaw boo tax boo jullee gàppru te te mën a taxaw julli goo nga julli di jàppee sunna julli gu baax la ñaareel ba ci teguwaat moo di faaw da ngay def kabbarub armal mooy kabbar bi nga xam ne moom ngay njëkk a def booy boo duggee ci booy dugg ci julli gi ndax loolu moo lay dugal ci julli gi bu boo noppee nag la nga tegaat mooy jàng faatiye bu ko defee nag tak maanaam jëf yi nga xam ne moom lañuy def ci julli buñ bëggee xam buñ bëggee xam tënku farata mooy jëf jëf yi ngay gis ci julli ñu di ko njëkk a def ci biir julli gi ak ba ba nga koy def boo koy def ak waxtu wa nga koy def loola farata lay doon moo di ne booy def booy def takbiratul ihram farata la waxtu wi nga taxaw di ko def itam farata la jàng faatiye farata la waxtu wi nga xam ne moom nga koy def itam farata la sujjóot maanaam rukkoo farata la waxtu wi nga koy def itam farata la jëg su ci su ci ci rukkoo bi itam farata la waxtu wi nga koy def itam farata la sujjóot itam farata la waxtu wi nga koy def farata la maanaam boo boo ko defee itam maanaam wax boo koy def yitam ci def ko ci defin woo xam ne wu dal lay doon moo di ne booy rukkoo boo rukkooyee da nga toog ba da nga toog ba say cër ne rëmm nga soog a nga soog a jóg fa nga fa nga xam ne mooy rukkoo bi booy sujjóot itam da ngay toog da nga sujjóot ba say cër ne rëmm nga soog a jóg bu fekkee ne da nga da ngaa rukkoo te say say cër jotut ne jot jotut ne nga nga daal di jóg ba tey rukkoo boobee ba nga def baaxut sujjóot boobee nga xam ne itam def nga ko te say cër niwul rëmm jàppul ne itam sujjóot boobee baax na boo jógee itam ci rukkoo bi wala nga jógee ci sujjóot bi boo taxawut ba say cër ne sat ba tey itam jàppuñ ne julli ga baax na ndax loolu da bàyyi farata ndax da ngaa war a toog ba say cër ne rëmm da war a taxaw itam ba say cër ne sàtt nga soog a sañ nga soog a sañ a sëgg sëggaat wala nga soog a sa sañ a def jëf ji nga xam ne moo ciy topp kon mu mel ni faw daal yii ñu munta ñàkk la nag li na woon ne nag ne faw rëmm ji ak ak ak taxawaay ba say cër ne sàtt munta ñàkk moo di ne dafa am koo xam ne dafa mësa ñëw di julli yonent bi sallallahu alayhi wa di ko xool ba mu jullee ba noppi mu ne sa julli gi baaxul mu jull mu ne demal julliwaat mu julliwaat mu noppi mu ne sa julli gi baaxut mu ne mu mel ni nag da dafa yonent bi sallallahu alayhi nag ngir bëgg koo xamal nan la ñuy jullee mu ne nag boo boo taxawatee da taxaw ba say cër ne sat boo boo toogatee itam da ngay toog ba say cër ne rëmb nga soog a sujjóot nga soog a def la nga ci def boo ko defut julli du baax kon mu mel ni loolu mooy mooy li nga xam ne mooy farata yi nga xam ne mënut a ñàkk mooy jëpp jëf joo xam ne mu ngi ci biir julli te mu doon jëf joo xam ne da nga ci njëkk a teg sa bët wala mu am turu wu wala mu am aw turu boo koy def na nga xam ne loolu farata la muy teg kab kabaru albat bi xam nañ ne mooy jiitu di ci teguwaat mooy jàng jàng te xam nañ ne li ngay jàng mooy faatiye kon munti munti ñàkk jàng faatiye ci julli ndax boo ko deful julli ga du baax faw nga jàng faatiye faw faaw nga taxaw itam booy booy booy julli bu fekkee ne doon nga koo xam ku war a war a taxaw nga kon ba ca teguwaat itam moo di ne sujjóot maanaam taaye ji ngay def muy taaye ji nga xam ne mooy taaye ju mujj ji loolu maanaam sujjóot maanaam ci farata yi la bokk jataay bi ngay toog itam di ko def di ko def fara ci farata yi la bokk kon loolu boo koy def itam maanaam nga defe ko ci ni nga xam ne ni la yonent bi sallallahu alayhi wa jàngalee julli loolu moo moom ci farata yi la bokk sa ñëw ko defee neneen lu bokkut ak ni nga xam ni la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa ñëw njëkke ci rukkoo sa ñëw njëkke mujj itam sujjóot ci rukkoo maanaam sa ñëw njëkke sujjóot ci ci ci ci rukkoo sa ñëw itam mujjee ci rukkoo maanaam ni nga xam ne rek ni la la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale noonu nga ko sañ a defee sa ñëw ko defee nu bokkut ak ni nga xam ne la ñu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ba ca teguwaat moo di ne kon bag bu ñu xamee ne yii mooy farata yi muy yi nga njëkk jëf yi nga xam ne moom ngay njëkk a teg sa bët ci julli yooyu ndax xam nañ ne jàng faatiye mooy njëkk bu noppee teg ci jàng jàng saar kon ñu xam ne jàng faatiye mooy farata waaye jàng saar moom sunna la bu kon jëf ji ngay njëkk teg sa bët rek mooy ji nga xam ne mooy farata ak waxtu wa nga koy def jacey teguwaat nag mooy sunna noonu moom dañu mën a tënki farata ak sunna ci julli bu ko defee kon bi nga xamee ne xam nañu ne farata mooy jëf yi ngay njëkk a teg sa bët ci julli tam tam doon jëf joo xam ne am na aw tur jëf ji nga xam ne am na aw tur te nga koy njëkk a teg sa bët ci julli na nga xam ne jooja julli na nga xam ne loola farata la waxtu wa nga koy def itam farata la janga cay tegaat nag bu amutu tur lu du daa dafa àndandoog ba nga xam ne moo jiitu woon kon loola mooy sunna lay doon mu njëkk ji kon njëkk ja njëkk gi njëkk a jàng faatiha farata la waaye jàng nga ngay jàng saar nga xam ne moom dafa topp dafa toppaat ci ci ci njàng mu njëkk bi kon moom loola sunna la li nga xam ne mooy farata mooy faatiha yi li ci teguwaat moo dina kon ndax sañ nañu julli fu nekk wala ndax am na barab yoo xam ne rek fa lañ sañ a jullee yonent bi sallallahu alayhi wa dañoo xamaloon ne suufu si yàlla sépp day jàkka la lu dul nag ay armeel sañuy sufa julli ak foo xam ne itam dañ koo tawax ngir di fa sangoo ak yu mel noonu loola itam sañee su fa julli ñax mu tooy xipp itam sañoo julli ci kawam faaw xëy na dangay ngay bu amee lu dëll nag loo xam ne mën nga ko teg ci kawam te du tooyal li nga xam ne fi nga toog fi nga fi nga toog la ba tey ban ngaa julli ci kawam fi nga xam ne itam mooy fi ñuy yeew ay giléem barab yooyu itam sañoo faa julli digg aw yoon itam comme dañoo bëgguñu kuy julli ñu jaar ci kanamam sañoo dem ba ci diggu yoon wa nga nga nga taxawal fa di julli loolu bokk na ci barab yi nga xam ne kon lu sëñ Yusufa julli ndax li ko li ci li ko def nag mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo xamaloon ne bàmmee ay bàmmeel dee fa julli moo nu itam ne barab yi nga xam ne dañ koo tabax ngir di fa sangoo dee su fa julli moo nu xamal itam ne barab bi nga xam ne dañ faa baaxoo yeewu ay giléem dee su fa julli loolu kon mooy li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa jàngal yàlla nañu suñ borom dimbale nag ba ni nga xam ne moom la son fonke julli ak fi mu ko teg ñu de ko bàyyi xel nañ bàyyi xel loolu xam ne suñ borom lañ koy defal comme lu ñuy defal suñ borom la te te lu rëy ci moom la lu lu kawe ci moom la daray adduna wala daray yë luy luy yëngu warunoo jaral ñu fàtte julli gi nga xam ne moom lañ war a julli ngir leneen lu mën a doon nañ bàyyi xel julli te xam ne mooy jëf ji nga xam ne moom la suñ borom li njëkk a xool xam ne itam mooy keno bi nga xam ne ku ko jàpp suñ borom jàpp na ne jàpp nga diine ku ko woyofal itam xam na ne woyofal nga diine kon nañ ko jéem a jéem góor góorgóorlu di ko taxawal ci waxtu yi nga xam ne moom la ko suñu borom waral di ko defee itam ci ni nga xam ne ni la ko suñu boroom bëggee di ko defee di di ko bàyyi xel itam xam ne tolluwut ak leneen lu mën a doon yàlla nañ suñ borom taxawul boppam nag yàlla nañ suñ borom sàmmal boppam yàlla nañ suñu borom téye ci suñuy loxo jaarale nu fi nga xam ne mooy fi ñu war a jaar teggil nu fi fi fépp foo xam ne dañ fay dañ dañ dañ faa wërta jaar dimbale nu ci boppam moom mi nga xam ne mooy borom kattan tey borom man itam ba aar ci li nga xam ne mooy balaa bi nga xam ne dafa siiw te ñëpp di ko tudd ñu ñu ñu ñaan ñu xam ne jullit moom amul dara loo xam ne moom lay fegoo lu dul ñaan suñu borom jullit ñaan la am. comme ñaan nañu ñaan suñu borom suñu borom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy ki mën a musle mu musal nu ci waaye nag du tee nga bàyyi xel nga nga fogaru ndax fogaru suñu borom moo nu ko comme moo nu digal ñu nag fogaru mënut ñàkk nañ koy bàyyi xel waaye nag. àggale ko fenn fi itam ba mel ni yëgatu ne suñ borom am na loolu ëpp naa def ndax jullit waxtu wu ne na yëg suñ borom te ñaan loolu mooy li nga xam ne moo koy jariñ yàlla nañ suñ borom taxawu yàlla nañ suñ borom sàmm rabbana la tuti xulubana baada is hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal rabbana la tuti xulubana baada wa hab lana min ladunka wa fil akhirati